mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel te di ñu uh, topp ci suba ba léegi uh, ci bis bu sell bi nga xam ni mooy bisub uh, soxna Faty Issa Diop di wayjuru Cheikh Ibrahima Faty borom Daarul Moxti fii ci Thiéyène Jolof ni ñu ko doon ànd ak yéen ca barab ba ànd koog yéen foofee ca kër Serigne Fadilou sa Dieye ba léegi mën naa ne ñu ngi waat ci biir kër Serigne Fadilou sa Dieye waaye ci ëttub Alaaji Mafal Fall moom Serigne Mahmoud Awa Balla Mbacké kenn ku ne xam na ni màggal gi ni ko njaboot gi yëpp di taxawalee di ko dundal noonu yi la koy defee ñu ñëw fekk ko ci kër gi waaye ginnaaw bi ñu defee bernde yi ak xewlu yi ba noppi nag ñu fas yéene taataan ci moom ay kàddu yoo xam ni dana jëm ci bis bi jëm ci itam sangam bu tedd ba nga xam ni moo wane euh, dëkk bu sell bi wane soxna si tax ku ku jariñu ci soxna si war ko fàttaliku ñaan sunu borom defal ko tawféex te dolli ay leeram nga xam ne ci atum 1966 la ñu wanoon soxna si ba tey jii fu ne nit di fa bàyyeekoo ci àddina ci yoon wi rawatina njabootu borom daaru ma waxti di ñëw fii ci Thiéyène fekk si fi soxna faati Issa Diop kon ñu jox kàddu gi alaaji Mafal Fall moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla keroog ci plateau bi ñu doon amal Touba TV ñëpp commencé nañ dégg kàddu ya mu wax nee na bu njëkkoon dañu daan wax ni soxna jaara mooy jenn jigéen ji am màggal gi waaye léegi kon mën nañoo wax ni ñaari jigéen yi am màggal gi te màggal yooyu yëpp li muy bari bari ka defal ka ca moo defal ki ci nga wax ko keroog ci Touba TV mu marqué ñëpp te ñëw taataan ay kàddu ci yow yoo xam ni jàpp nañu ni njariñ lay doon ci mbokk yi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel ak fu nu mën a nekk ci àddina bi yëpp kon alaaji ñu jëbal la kàddu gi salaamaaleykum mbooloo mi ñu sant sëñ Moustapha ñaan yàlla yàlla guddal sa fan bon di sant <coughs> média yi fi taxaw yëpp ci ñëw ci bis bi mm-hmm. di ñaan yàlla ci borom bis bi yàlla yokk leen mm-hmm. ba ngeen yëg ko mm-hmm. ah, wax ji nag mën naa gudd bis bi moom ku fi ñëw rek ngëneen nga fi jëlee. Mhm. parce que bis bi moom bisu soxna Faty Sy la ci at mu nekk mu yokk la ma doon wax ci plateau bi lay dolli wax. Mhm. Mhm. sëñ Tuubaa nee na Cerno lu ma am dinaa la ko jox ah lu mu jox sëñ Tuubaa lu mu jox soxna jaara dana ko jox maam Faty Sy. ne fa mu teg maam Faty Sy teg ko fa soxna jaara la preuve nekk boo fi soxna si jógee la ne ni maa ngi doog ko ñàkk waajur loolu moom firndeel na lu nekk. Mm-hmm. li mu ko defal tam defalu ko kenn defalu ko keneen defalu ko ndeyam ju ko jur defalu ko benn jigéen sëñ Touba mus la denc kenn kenn ci armeel. Mm-hmm. sëñ Touba mus la tudde kenn doom ku dul soxna Fatou Seye ñaar yooyu moom la ko beral moo tax mu wax firndeel ni lim nekk lim ko ko tudde doom ji lim ko denc ba mel moom mooy waajuram. Mm-hmm. fii nag a ah, nanu sant sunu sang bu baax bi muy sëñ Fallou Assie ne toog na lu yàgg. kenn xamul soxna si kenn mësu koo siyaare kenn du fi ñëw moo fi ñëw wan ko dekkal bis bi ba ceen am empleur bi mu am waaw ñi ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax woo na ma ni ku fi am taw feex na nga ko sànni sëñ Fallou si Dieye ah loolu nag sëñ Fallou moom yàlla nañ ko yàlla fayal boppam doomu sëñ Modou Balla joo xam ni ku ko dégg loolu la mooy bàyyi Fallou moom leneen yoru ko woon sëñ mu daaw balla ak ndigalam ba ba mu fi jógee deful leneen loo xam ni génn sëñ mu daaw balla yàlla mi fay yàlla na ko yàlla fayal mais lépp nag ci liggéey sëñ mu daaw balla rek mu daaw balla mooy kenn koo xam ni liggéeyam du fay lu mu wax ala kulli àll si teg bët ñun de ñu ngi sant yàlla ñun waa kër Gora Fall dëkk Louga lanu boole sëñ mu daaw balla rëcc wuñ sunu bàyyi mi ni boole sëñ mu daaw la ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que lu mu defaloon sëñ Moundaw Balla rek sëñ Moundaw Balla fay na ko ba des ko 82 de sëñ Moundaw Balla mujj Louga bi mu demee wax jamono joxoon a ah, ba mu ñëwee Daaru Musi dellu si ba nuy wax di ko jébalan jébal ba mu waxee ne Touba jógal taxaw yëkkati naa leen yëkkati googu baatu yëkkati boobu ba léegi barke sëñ Moundaw Balla maa ngi ko gis lu ma dugg mu yëkkati ko lu ma laal ñu yëkkati ko loolu nag mun la pass lu dul sant man de xam naa ni yëkkati googu gis ma lenn lu koy daaneel waxuma la tërëf sax duma ko def. dëgg la de mbay daanu waaw kon nag sëñ bi la ma waxoon aw ma ci xel ñaar waaw lu ma gis muy caméra bi li ma gisagun ti ñëwagun laa gën a gëm ci waxi sëñ Modou Abal la wax moo tax nan sant bu baax a baax. Mhm. ñi ñaan yàlla nag fii ku fi ñëw loo fi indi ci tawat yàlla na dañ ku fi indi ci jaxle yàlla na ko. amiin soxna si man na parce sëñ Tuubaa dimbali la woon ku sëñ Tuubaa koo xam ne bu ne ku gëm sëñ Tuubaa moom mooy si jëkk gëm sëñ Tuubaa bi ñëpp weddee moom rek fi nekkoon moo tax yal nañ ko yàlla fayal a ah di leer mooy li ma leen wax rek dana ko répété at wax ni benn jigéen bu am màggal loolu ala kulli alin daan dem ba ni ñaari jigéen bu am màggal waaw ban ne soxna Faati Sa lu tëkkale nag dëgg la mais sëñ Tuubaa moo ko wax sëñ Tuubaa moo ni kii mooy sama waajur soxna Diarra ko mooy mooy waajuram kenn weddiwu ko mais ba fi jógee mu ne ma sama maa ngi doog a ñàkk waajur loolu tax nag mm-hmm. mm-hmm. lu mu may soxna Diarra dina ko may soxna Faty Isse kenn weddiwul loolu moo tax ma xam ni la Thièyeen ku xamoon poroxaan ca ndoolte ga nga ñëw ci Thièyeen da nga xam ni lii Thièyeen am allah kulli leen dana dem ba dab Porokhane mm-hmm. moo tax loolu amul tànk gannaaw tànk kanam rek la yàlla na yàlla fayal képp ku fi ñëw ah sang yi fi ñëw yëpp ngir ñëw seen maam la ñuy si rek yàlla yàlla defal jàmm yéen itam yàlla muy tey fay yàlla na la yàlla fayal boppam. Mm-hmm. ba lu ngeen ci nam ci ñëw couvrir télé bi yàlla ngeen couvrir ba couvrir leen lu ko raw. fekk lépp lépp bu kenn nettali seen gannaaw. jaajëfati yàlla ak si mu rabal. amiin desen tuuti <laughs> euh, jërëjëf euh, sunu wayjur alaaji ma faal faal ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne moom la yëkkati euh, moom nag ni ko bokk yi waxee ci plateau boobu ñu génn. léppam sëriñ Mouhamadou Awa Balla la ndax eh, alaaji góora di léppam kenn ko ne xam ne di sëriñ Mouhamadou Awa Balla moo ne ko woon yëkkati naa leen te kenn dootu leen mën a daaneel loolu yi mooy dox ba nëga ni waaye jëlaat na lépp moom mi delloo ko sëriñ Mouhamadou Awa Balla eh, mu mel ni kàddu bi nu bëgg a tëjee rek eh, alaaji mooy nit ñi sax dañuy dem ba ñeewante la ci lu baree baree baree bari ndax ñi ngi ci Ceyeen altine incha allah rabbi la war a doon plateau bi direct Touba TV waaye ñi ngi jub màggal Serigne Mamadou a Balla ci àll kër Alaaji Góora Fall ci mars bi incha allahu rabbi yooyu la bis yëpp ak euh, bis ya ko jiitu muy màggal Serigne Mamadou Awa Balla ak màggalu Daaru Moxti ak yeneen mu mel ni nit ñi am na ñeewante goo xam ne ci seen xol waaye yooyu lépp da nga koo delloo sëñ Modou Awa Balla mel ni sëñ Moustapha man sëñ Modou sëñ Modou bu xew lay ala kulli lu mu mënul man day xanaa ñaan yàlla damay ñaan yàlla fan mu fekk fi ak fan wi rek mais man man mi du ko du ma ma ci xel ñaar fan wi rek laay gudd mu fekke ma fan sama bakkan bi mais leer na ma ni wóor na ma ni sëñ Modou Walla mooy defar lépp lépp lu man ak ku ma jox itam ngir sëñ Modou Walla la man du ma amul kenn ku yàlla bind ak lu ku lu mën a nekk sa waajur dama lay wormal rek mhm. yaakaar ji kenn laa ko jox sëñ Modou Walla mhm. ku ma jox sama dërëm itam ngir sëñ Modou Walla la loolu mu xam ko sama wërsëg wi lu ci jëkk rek jëm ci kenn sëñ Modou ko tax moo tax maa ngi sant bu baax loolu bu ma ci kenn ñëwul hmm. man kay damaa bëgg ñu may ñaanal yàlla guddal ma fan hmm. leneen li nag du ma ko ñaan kenn sëñ Modou may naw ko bare <laughs> waaw ñaan keneen amul soxlaatuma ko yeneen hmm. gudd fan gi yàlla na ma ko yàlla defal yàlla mi maye yàlla mi tëdd yàlla ma ko yàlla defal mais leneen bu ma ko ñaan sëñ Modou ba mu ne jëkku yëkkati naa leen te du leen dañ day na yëkkati doy na sëkk yëkkati ci bépp boor la yemul ci ci ci ci ci ay fan yemul ci wërsëg yemul ci lépp la wax. waaw moo tax yëkkati naa leen ci kenn du leen daaneel doy na sëkk wax. Mhm. waaw moo tax ku wax jooju kay ki gëm loolu da ngay noppal sa bopp. ne amuloo loo yóotu da nga ko jot. Mhm. waaw kay yëkkati naa loo yóotu rek da nga ko jot. soo man man ñu ngi sant bu baax. li mhm. des nag nañ sant yàlla yàlla fekkee. Ah, li nu dëgmal mooy bisu sëñ Mourou Ball ba mooy sunu benn bis mooy suñu màggal ñun amuñu leneen itam lu dul sëñ Mourou Ball moo nu defal lu kenn deful ah moo tax itam lu nu am duñ ko yéene moom la sëñ Mourou mooy sunu lépp moo tax itam bañaluñ ko dara waaw bu nu accès ngir yàlla dëkk ba ku si ku ku ko yéem yow la mais dara ñun yéemuñu si lu nu sañoon exactement di def ba ku ne